mu nekkee ca kaso ba baaxul dangaa yërul l'observateur yéene kaay mi ne Cheikh Béthio Thioune est un prisonnier de luxe prisonnier boo xam ni nammul dara ndax am na duubul lii te it am na frigo bar am na ci lu ëpp téeméeri prisonnier yoo xam ni jëlee nañ leen ca Thiès yóbbu leen ca Diourbel ak ca Mbacké l'observateur yéene kaay ne njiitu cantakut yi kat moom ku ko dem seeti dafa mel ni nekkul ci kaso bi direct info ne ki nga xam ni mooy cantakun bi ñu faat di baara sow am na lu mu dénkaane muy confidence yoo xam ni ku yër direct fo tey sa yaram dina daw yaax des ndax waa ji kat dafa meloon nii dafa sentir ni day dee li xew ne kañ moom li xew mooy lenn kese ndekete yoo waa Touba Mbakke yëgoon nañu ni dinañu teg la loxo Cheikh Béthio Thioune waaye ca présidence de la république journal bi li xew ne la fa xew kat dafa doy waar ndax dafa am ñaari pàcc ñii ne nañu teg Cheikh Béthio ba damm ca caabi ja ñetta des na nañu ko génnee waaye li leer ba leer mooy am na ci ay murit yoo xam ni jóg nañu taxaw temm boole seen bopp defub dànk ngir ñu génne njiitu cantakun yi njiitu cantakun yooyu populaire yéene kay nii la amoon ca kër sambalaw bi dafa sax ñaaw rawatina Medina Salaam na nga xamante ni nii noonu la ndaje mi nga xam ni ñoom la Baara Sow ak Pape Babacar Diagne doon amal populaire yéene kay nii Baara Sow dafa ne ñu ngi dem nag waaye jàmm rek a tax ñuy dem waaye nag bu ñu demee lu ñu ca fekk rek nañu xam ni ñun la populaire yéene kay daaneel rek Walfadjri Grand Place jël daal na nañu fàtte doomi aadama yi dafa ñaaw ñetteelu coup de moo faat ki nga xam ne moom moy Babacar Diagne waaye li leer ba leer moom wal Walfadjri Grand Place ne ki rey Babacar Diagne mi ngi tudd Xaadim Ndeela Xaadim Ndeela mooy ki nga xam ni moom moo soqi jum bi tribune yéene kay ne léegi nag dafa doy ndax wax dafa jooy ñu ne ko looy jooy mu ne dañu ma wax te jotagul te jot na nag sëkk nguurug Macky sàll gi wax ci watama njombe gi nga xam ni moo am ci réewum Sénégal Sénégal déglu leen am na lu xew l'ancienne première dame du Sénégal ndekete moo dàq yaa ma neex jinne libération yéene kay ne Viviane sax dugg na ci ndax yaa ma neex benn milliard bu teg juróom fukki million moom la def ca Sénac jabaru Abdoulaye Wade ji kat nërmee la loolu koom-koomu Sénégal koom komu Sénégal bu yaay defee dooma cay topp muy sijëli Wade mi nga xam ni ndekete appel entrant yi tolloon na fukki milliards ak ñeent yoo xam ni réer na ca fesman bi nga xam ni moom lañu ko dénkoon enquête ko ne bàyyi lim fi doom def ko jabar def na lu ko raw fuuf réew mi ko di ñëw ne nguur gi récupéré na suuf si nga xam ni nguurug Abdoulaye Wade bazardé woon nañu ko ca Almadi ca Yoff ca Wakaam ca Cissés ca Mermoz képp koo xam ne amoon nga fa terrain te nguurug Abdoulaye Wade jox la ko boo ko tabaxee ñàkk nga sa xaalis réew mi ko di ñëw nguur gi jóg nañu taxaw tem ngir sax récupéré juróom benn téeméeri milliards yi nga xam ni def nañu ko ci yooyu suuf démb moom ki nga xam ne moom mooy fëgala laal na suuf ki ko daan du kenn ku dul Garga Mbossé bu dóor dóoraat Leewtoo yéenekaay ñu ko wax li leer ba leer daal mooy ndax dóor dóoraat day am ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Eumeu Sène Double Less bàyyi roi des arènes ne ci biir suñu làmb Gaston Mbengue le donkin de l'arène wax na ak moom ngir Balla bëri ak Eumeu Sène revanche bi lees na mën naa am lees ñu laaj ko ne ko ñaata nga dépensé ci wàllu xar fa fuufa bi Balla di bëri ak Yaxya Jóob nii mu ne ëpp na fukki million dem naa fépp nag ngir sama doom daan ki nga xam ni mooy Yaxya Jóob Yékini li leer ba leer daal mooy Double Less nee na bu sañoon dina dund ba dee te doomam du laal suuf mbokk yi déglu leen déglooti leen barki Dembo Njaay maa ngi leen ko doon nettali populaire yéene kaay ne dafa am benn baay boo xam ni dafay seeg yaay te am nañu ay njaboot waaye baay bi amul ay moyen yu mu wutee ñaari néeg ndekete yoo bu guddi jotee rek mu tappas jabar ji dem fekki doom yi ci suuf am na doom bu jigéen nag boo xam ni am na fukki at ak ñett ndekete baay ba nga ko cay nekkal rek nekkal ko ci rek bu guddi jotee rek mu jàpp doom ji du tëddee ndekete yoo doom ji tàyyi na damm na dee na comme ndijaay mooy yaay mu dem di ko expliquer ndijaayam xam ngeen ndijaay ji lan la def di laal dënnu xale bi maanaam di lamb ay weenam xale bi tàyyi damm dee dem ci fa nga xam ne moom mooy ca police waaye ba ñu demee ci police mbokk yi information baa ngi nii soog a ñëw ndekete baay bi dafa déviergé woon doom ji maanaam ndaw gi la yóbbu la ilaha illallah muy baay muy nijaay ñoom ñaar ñëpp nag yóbbu nañ leen ca ndungu siin caabi féetale leen ginnaaw may laaj lu war ci ñoom man de ku ma laaj rek man mii am déet Pape sàmb tëj leen ba damm ca caaba ja ñaw Adama